asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV tey nag dañoo xëy ñëwal leen mbakke Mbacké ko Serigne Touba bu tedd boobu ànd ak Abdou Aziz Alé Ndiaye taalibi Sidi Hadj Malick bi mbokk yi ngi noonu jàkkaarloog Serigne Mountakha mbakke moom Serigne Bassirou nga xam ne mooy Serigne Touba mu sotti mu ngi noonu jàpp ci bopp Abdou Aziz Alé Ndiaye ko ñaanal Abdou Aziz Alé nag def na la mu daan def mooy jël addiye ji nga xamante ni moom la daan jox tabarakallahu waa kër Serigne Touba indil ko Serigne Mountakha mu ngi noonu Serigne Mountakha ñaanal ko ñaan yam ko daan ñaanal laaj ko Serigne Babacar Sy mu Abdala Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour laaj ko waa Tivaouane yëpp ñaanal ko yàlla kon nag mbokk yi nañu ànd xool Abdou Aziz Alla na mu toogee woon ak Serigne fedd li wala réew bu baax Mbacké sakku ñaan nga ñaanal baayam amiin amiin Mbacke Balaye sama la géwélu Tiwaan jox la sama loxo rek laa bëgg dimbali ma